sant ñu gën a gërëm yaakaar naa ne dama ñëwoon Touba. Hmm? Euh, dafa amoon tey ñaari mbir ñëw tey nii. am doole macha allah demoon ba décevoir ba xamatuñu quelqu'un dansé yi ñëpp gis ma action yi may posé à Thiès macha allah mu ngi nii ni seen ma si réseaux sociaux yi ñoom seen bopp tey ñoo ñoom ñoo recherche ba xam ma ñoo seet si ma sama siège fekk ma Touba à Thiès ñoo ni na ma président. dañu gis action yi ngay posé à Thiès dañu bëgg ngeen di ko biir Touba ma tontu leen ma ne waaye am na ne ma nuñ de leader gis Touba gisuñu fa leen ko nag ñi ñëw say si mouvement ànd soxali Sénégal avant ni say comme ni ñu faral toujours ñoom wax nañ ko xam nga nit bu la waxee dara un politicien nga ah kii day wax lu mu neex ma na leen man je suis d' abord un ingénieur un homme de l' action li ma njëkk def mooy d' abord Touba te ñëpp xam nañu bëriwu intellectuel ñëpp ay ndongo daara ñoo fi nekk ma dafa leen ay formation ak jox na ay diplôme d'état formé li ñu defee savon à eau ba gis nga nii ñoom ñoo ko defar ma jàppale leen jël aussi tam ñit aussi tamit pour nga liggéey il faut nga wër gu yaram ma jël ay mutuelle cent mutuelle carte mutuelle de santé ma teg ko sa loxo pour accompagner leen si wàllu jeunesse bi aussi tamit gis ngeen indi am na benn matériel boo xam ne indi naa ko matériel sérigraphie jàppale jeunesse bi pour ni mun a liggéey ngir daal seen doole. waaw loolu est ñun ñi nga xam ne nekkuñu même biir APR nekk un mouvement indépendant am na jalousie mais nag li may faral di wax toujours ñi da gëm sa bopp ànd ak loyauté ak gëm-gëm ñun képp xam ànd su xam na ni Macky lay nooyee si loolu moo tax euh, boo xoolee sama naataango maa ngi ko remercier de passage. le DG Galoba nga xaw ma ko téléphone la ma woo ne ma président nanga def dama bëgg dégg naa da ngay meeting à Mbacké dañ ko dama bëgg ñëw ma ne ko soit la bienvenue ñëwal ma teral la. parce que tey li may def dama ko def pour lan pour jàppale seen le président Macky Sall dooleel président Macky Sall dooleel waa Mbacké dooleel waa Touba moo tax ba donc je pense que loolu waru am benn jafe gis-gis mais quand même gouvernement bi dama dama koy rafetlu lool. parce que yaakaar naa ne ku am ku xam nga li ñu war a bàyyi mooy politiciens yi fi nekk di ngañ rek. defu fi lii defu fa laa bu leen joxoon dëkk bi lu mu gën a garaaw au moins am nañu chance avoir un président de la bu xam ne jaar na fu nekk nekk na fi DG occupé na toutes les postes ministériels président assemblée nationale quelqu'un bu xam ne qui a sillonné toutes les les toutes les Sénégal xam na les réalités li ci des mooy ñii nga xam ne maanaam ñoom la dénk tànk nañu gën a góor doole góorgóorlu jege askan bi gouvernement bi nag dam koy rafet lool lool moo tax Idrissa Seck lu mu dis gouvernement dama si kontaan ak ñeneen ñeneen donc li may ñaan mooy rek nañu gëstu askan bi parce que askan bi sonn nañu. li wax naa ko fii ba taay je wax naa ko en opposition parce que ñi fi nekk ñëpp boo xoolee te bo la majeure partie mooy démb rek gis nga li am mooy démb opposition bi tas na ñii dem nañ à gauche ñii dem à droite donc kenn laa fi gis Sonko am nga euh, force te pour nga gagner réew il faut nga am coalition ñun nag bu ñu président bàyyee rek. ak Sonko rek ñun si boppam pour régler la problème. voilà léegi immigration clandestine xale yaa nañ leen a jàppale mais aussi ñoom si loolu. waaw si man wax naa ko bokk na si lu gën a tax mooy ni sama contribution si wàllu jeunesse bi parce que jàppale naa femmes yi jeunesse bi mën na leen naa leen may benn machine sérigraphie bien que ñun amuñ ay postes de responsabilité comme ni ko ñu ne amee nekk ay DG nekk ay ministre ñu on est des simples de l' administration xam ne lu ñu yàlla wësëgal lu ndaw ndaw moom la ñu askan bi donc ñun indi nañu fi tey benn machine boo xam ne dina permettre jàppale askanu Touba bi pour ñu mën liggéey si machine bi pour daan seen doole. dina permettre aussi tamit dina mën a wàññi parce que boo xoolee immigration bi bu ñu defee diagnostic bi xool ñu bëri Touba ñu ngi dëkk si zone côté côté Touba côté parce que gisuñu lu ñu jàpp lu ñu jàppan na mooy ñi nga xam ne tey ñoom la président démb tànk et puis à l'occurrence maa ngi lancé sama xarit sama frère Galoba na gëstu bu baax a baax waa Touba na waa Touba waa Mbacké parce que ñun aussi bu la président dénk ay ndombal tànk lu muy xaar si yow mooy mooy nga liggéey ko nga liggéey sirgal askan parce que tey képp ku falu rek askan moo la fal donc ñoom war ni gën a doolu góorgóorlu jàppale nga xam ne bu ko defee rek kenn dootu xalaat jël gaal dem parce que tey li ngay bañ Sénégal boo demee bitim moom ngay def man dem naa bilan dem naa Allemagne mais li ma gis Sénégal yi ne dañuy laqatu sax di jaay di jaay am xam ay chaîne di ñëw di ay pakuti tey boo fi toogoon tey li ngay dal sonn sa bopp mun nga fi amee fii donc euh, maa ngi lancé wàlla message aussi aux jeunes nañu delluwaat seen xel comme gouvernement bi président changé na gouvernement bi incha allah rabbi yaakaar naa ñi nga xam ne tey dénk na leen ay ndomba tànk dinañu liggéey delluwaat seen xel liggéey. merci